Diallo daat nay wax ne résultat yi nga xam ne douane def na ko ci lu jëm ci wàllum xeex trafic drogue ak trafic arme ak trafic faux médicament loole tamit douane def na si ay jéego yéen a gi di réew mi quotidien moo xëy di ñu ko xibaar yéen a kaay gi di la Soleil moom xëy di ñu xibaar naan ñu banque africaine de développement dina dugal ci Sénégal lu toll ci cent quatre vingt ngir nag ñu jàppale si ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi ak ñi nga xam ne ñooy petit et moyen entreprise ak ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi yéen a kaay yàggatul dara dina am forum boo xam ne ndaw ñi ndëkk ci diwaanu Afrique la ñu koy jagleel organiser ko ko ci diwaanu Ndakaaru yéenekaay gi di bés bi ak ñu xëy fekk fa Birahim Seck muy wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn moom waaye forum civil gi daat nay wax ne maire yu bees yi ñoom ñëpp nañu def li nga xam ne mooy déclaration patrimoine maanaam wax seen moomeel nan la toll yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee ko gagné ca diwaanu Mbuur département ba ak ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko ngar daa jooy yéenekaay gi ñooy waa Benno Bokk Yaakaar njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb toog na sa pale ba nee na ñoom ñàkkuñu li nga xam ne mooy élection yi nee na Benno Bokk Yaakaar moo gagné ci lu toll ci quatre-vingt pour cent a kaay gi di l'info ba tëdd sa naaj wala def ne Benno Bokk Yaakaar amul defet yéen a kaay gi di réew mi quotidien na ko waa baax na en tout cas li am ba des la mooy ville bu Ndakaaru ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi li ñu ferawee Benno Bokk Yaakaar maanaam saxaar mënu koo daawa ndax lu ëpp 92 613 ci ay voix moom Wi rawee Benno Bokk Yaakaar ci ville bu Ndakaaru yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection yi yeewi askan wi li mu ngar daa joo ci ay commune ci ville bu ndakaaru moo bëree ndax Grand Yoff yeewi askan wi moo ko gañe Yoff yeewi askan wi moo ko gañe Parcelles Assainies yeewi askan wi moo ko gañe Ngor yeewi askan wi moo ko gañe Jëppal Derkale yeewi askan wi moo askan wi moo ko gañe Patte d'Oie yeewi askan wi askan wi moo ko gañe Mermoz Sacré-Cœur yeewi askan askan askan wi moo ko gagné HLM Yewwi askan wi moo ko gagné journal bi nee na Bamba Fall gagné na fi nga xam ne mooy Médina Cheikh Ba mi Bamba Fall gagné nee na nag du mos a bàyyi waa Médina yéenekaay gi nee na mbooleem li nga xam ne nag ay ngañaay la ñu war ko gagné ci diwaanu Thiès loolee ko raafale journal bi di Rewmi Quotidien nee na Thiès Est di Thiès Ouest loolee na ko waaye nag Thiès Nord jamono ji gars yi ñoo koy compté département bu Rufisque foofee Yewwi askan wi moo ko raatale yéenekaay gi de la Tribune nee na PDS gagné toll ci ñaar fukk ci ay gox maa ngi ci poosama yéenekaay gi de la Témoin nee na Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar ci ville bu Ndakaaru dóor yi nga xam ne ñu waxantee dëgg Yewwi Askan Wi dafa gas ba mu xóot dugal fa APR daal koy suula maanaam Yewwi enterre l'APR yéenekaay gi di Rewmi Quotidien L'Observateur Enquête Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu mi di président Macky Sall ni daat nay dalal ñi nga xam ne ñooy imam ak ulema yu Sénégal palais ba ngir waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci wàllum borom ñaari tur yi di Macky Sall nee na leen nag bi wax na ci lu leer naññi te man nag tànk maa ngi nekk njiitu réewum Sénégal borom ñaari tur yi duñu ko mos a daganal ci réewum Sénégal journal bi nee na ànd yi ñoom nag ñoo ngi waajal rassemblement bi nga xam ne dinañu ko si amal ñaar fukki fan ci weeru février yéen a kaay gi de turbina nee lu jëm ci wàllum njuuj njaaj wàllum trafic boo a trafic passeport diplomatique yi ngeen doon dégg ñu ko fi doon coow di si tudd ñaari député benn bokk yaakaar benn député ba di Mamadou Sall ma nga ca kasu kenn ki di Boubacar Biaye ma ngi ci mbedd yi waaye nag dinañu ko convoqué altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal juge d'instruction bi dina jàkkaarloo ak moom yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ci organisation mondiale de la santé nee nañu nag jigéen ñi nga xam ne ñooy jéem a yàq ëmb ñi si faatu bëri nañu loola gi di source xëy duñu xibaar naan ñu ma ngay nga xam ne nag ñooy jaay seen bopp <laughs> ak ñiy jaay alcool maanaam sangara jamono ji waxutuñu dara maanaam dox na la lool lool fi nga xam ne mooy Cameroun étranger yi nag moo tax mu dox ndax am na benn xale bu jigéen ab camerounaise bu tudd Estelle moom nag nee na guddi gu jot daal dina am juróom ñaar ñoo xam ne dinañu ñëw ci moom te kenn ku nekk dina fay lu toll ci vingt mille francs sept plus vingt mille cent quarante mille nee na tamit am na ñoo xam ne dañuy yeggale guddi gi bu ñu ko yeggale quarante mille la ñuy fayee ba tey ci source am na ay jigéen ñoo xam ne ay camerounaise lañu di jaay seen bopp nee nañu nag am na étranger yoo xam ne